du politique politicienne ay actrices de développement ñoo fi daje ay jigéen ñoo xam ne quatre heures du matin la ñuy yeewu taxaw ay jigéen ñoo xam ne seen kër lu fa dee ñoo ko rey seetaanuñu seen borom kër seetaanuñu seen i njaboot ñooñu ñoo fi toog tey nag dañuy fal le président Amadou Ba au premier mu nekk mouvement boo xam ne ñu ngi sur l'étendue du territoire sénégalais waaye tamit ñi ngi dans les dans la sous-région en Gambie en Mauritanie ñi ngi en Europe en France en Italie en Espagne aux États-Unis au Canada ñëpp nag bootu muy mbooloo moo xam ne nekk na plus de personnes ñëpp taxaw ci ginnaaw le président Amadou Ba président loo man de li ma gis ci moom bi ma ko xamee léegi mooy nangu liggéey teel a xëy guddee wàcc ku ànd ak moom mu teg la ci yoon loo xam ne di liggéey jigéen ñëpp nag ñii fi nekk ay jàmbaar lañu ay gaynde bi jigéen ñaa ngi liggéey di takk seen digg di daan seen doole ñooñu ku mu taxaw engagé wu ndi dinañ la fal dinañ la fal xam ne moo a ñu ko laaj fépp foo le ndax am na mbooloo mi mën ko te dinañ ci ginnaaw man na képp ku ma xam xam ne musuma politique su ma doon vaar léegi gis samay vidéo ak samay message yoo xam ne maa ngi koy lancé naan leen bàyyi leen jigéen ñi bàyyi leen politique bàyyi leen homme politique yi ngeen di àndal ñu leen di nax bàyyi leen politiciens yi leen di solal t-shirt di leen nax waaye boobu daa fekk xamaguma leen donc monsieur le président danaa daje ñëpp danaa daje ñi def politique politicienne dajale ñi nga xam ne sama compagnie bi la xamuñu lu dul Dóor waar ñu nga doy leen ñu doxal leen te fas yéene ànd ak xëy na nag lii lu formel la liñ fi war a wax mooy def fran wax français ak ay def ay discours fii ñu fi ne seen teewaay doy na discours si suba ba léegi kaar yaa ngi ñëw kaar yi njëkk a ñëw neuf heures fekk na leen fi ñu toog plus de cent cinquante kaar jóge ci région yi ñëw taxaw am na fii ay kaar yoo xam ne ñu taxaw wàcc ñu ndax sool donc ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ndax ay jigéen la nga woo ngay ñëw dañ naan jigéen ñi ñoom ñu ngi mais fii ku xool ñu fi ne xam ne ay waaye bi la jigéen ñi woowee da ngaa bàyyi yëpp ñoo fekk si leen te loolu day ñëw sa def un signal fort waaye jigéen ñi ñëpp ñoo taxaw ni ànd par Amadou Ba au premier te loolu ñii ñu ci ndokk te lépp ñëpp ay électeurs loolu ak ay électrices amul benn mbooloo bu dañoo amul dañoo daje ngir toog di di show ñii ñu ci nekk ñu engagé lañ sa ginnaaw donc ñu ngi leen di sant ñu ngi sant mbooloo ñu ngi leen di gërëm ndax yi jii xam-xam maye na nga nekk sa bureau wala nekk sa xam di xew fii gis naa mobilisation bi fi amoon ci diggu bëccëg bi ma xam ni liggéey la yow ak ñi nga àndal yëpp ma leen ciy félicité di la encouragé c'est vrai man actrice de développement laa la xamee ngay sonn jël sa xam-xam ak sa jot bokk kook askan yi notamment jigéen ñi man may acteur du développement ndax loolu moom ma gën ma gis ne ñu ciy liggéeyee ma xam ni ku la jàppale war ngaa mën a gën a amal njëriñ bi askan bi bi nag fay na la ko tey moo tax bi ñu leen woowee yu wuy si la jógee ci région yëpp ci Sénégal ngeen doon aussi des actrices de la société civile parce que ñu ëpp ci yéen kenn xamul leen ci politique wala boog bu ñu bokkee ci parti politique yi force vive, c'est des militants ñun ñëpp dajoo pour porter sama candidature ginnaaw bi nga xam ni président Macky Sall namm na ko ci ñun je ne peux qu'accepter nangu cette investiture. dëgg la je suis un acteur politique membre d'un parti et d'une coalition mais le Sénégal appartient à kon bu amee ay acteurs de développement ñoo xam ni fësuñu ci parti yi dajale mbooloo mu day nii te fu ma dugg ci Sénégal gis sa mbooloo taxaw mënuma woon bañ a ñëw fii xamal la lii ngeen bëgg nangu naa ko mais surtout surtout daf ñu gën quant à la justesse de notre position muy ay acteurs de développement ay acteurs politiques la ñu acteur politique amul sens ci suñu réew yi boo dul acteur de développement et ensemble je dis bien ensemble on va poursuivre les travaux en cours pour aller à l'émergence du Sénégal ñi ngi fi dajale ñi ëpp ay jigéen ñi c'est plus de la moitié de notre population mais surtout ni ma koy waxee jigéen yërmande la jàmm la te lu waay di def ci sunu réew yi en jiitaloo leen c'est-à-dire sàkkuwoo jàmm ñaanoo jàmm loolu ku koy woote man de bokk na ci ndax amul njariñ du dem fenn moo tax issue wu wu vingt cinq février ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax a baax je suis même convaincu je suis qu'avec des acteurs au sens large yu mel ni yéen midi ku yéex a soow di nga fekk gars yi di moo tax exceptionnellement le 25 février nañu fexe kuy teg ak na nga ko teel a teg ci boo jullee njël rek tegal comme ça balaa 10 heures nga soo yekk di xaar parce que bu midi jotee day fekk affaire yi jeex kon maa ngi leen bu baax a baax a baax di leen encourager développement ngeen wax sunu réew ci loolu la war a ci loolu laa leen yóbbu am nañu ay instruments yu bari dëgg la def nañu lu bari président def na lu bari dëgg la dañ ko war a yokk dañ ko war a gën a gaawal moo taxoon bi may def déclaration de politique générale en tant que premier ministre ma ne Sénégal am nañu ay structure de financement yu bari mais li ñu soxla war ko am mooy une véritable banque de développement jigéen ñi weesu nañu ay lebu deux cent mille et trois cent mille la ma leen bëgg a defaral bu tuutee ba tuuti un million ngay départ moo tax ma waxoon banque de développement parce que tant qu'on est la microfinance dafay cher benn te alal ji mën naa bëri bëri mais li yëpp bu ko dajalee li ñu yëpp bu ñu ko dajalee def ko ci benn banque bu mag DER nekk ci FONGIP nekk ci Crédit Agricole nekk Banque de l'Habitat du Sénégal nekk ci BNDE nekk ci réew yi développé yëpp foofu lañ jaar et maintenant ci la ñu mën a dimbalee des actrices ñu wax ci jigéen ñi ñu mel ni Maïmouna am na xam-xam mais elle est bloquée par l'équation du financement am na xam-xam elle est bloquée par l'équation des garanties jigéen ñi tey jii loolu mooy seen handicap handicap yooyu dinañ ko lever ci Sénégal bii nga xam ni bëgg nañ ko à partir du avril boo libéré le potentiel bi nga am ci liggéey ñi la ñuy liggéey ñi ciy àndal ñi ci ëpp njaboot gi la ñuy mooy xale yi moo tax je me suis positionné comme étant le président de l'emploi des jeunes defar nañu ay tali defar nañu ay raay xam nañu fi ñuy jaar ba mu gën a gaaw ndax fekkee nañ kon xam nañu fi ñuy jaar fii nga xam ne tàmbali nañ ko war ko accélérer mooy li jëm ci développement du capital humain jigéen ñi ëpp ci solo lool moo tax les gratuités yi nga xam ni am na ci santé yëpp dinañ ko fi bàyyi yokk ko moo xam césarienne la moo xam yenn xeetu feebar yi nga xam ni yàlla jigéen ñi rek ñoo ko mën a am loolu yëpp en termes de gratuité dinañ ko yokk ba xam ne niñ ko mën a amee Ndakaaru mën ko amee noonu Kaffrine mën ko amee noonu Thiès mën ko amee noonu Tamba mën ko amee noonu Kolda mën ko amee noonu Kédougou c'est-à-dire sénégalais yëpp ci wàllu paj am les mêmes avantages infrastructure yi commencé Kédougou Kaffrine am nañu ay hôpitaux yu mucc ay programme boobu duñ ko poursuivre département bu nekk Sénégal fii juróomi at yi ñëw di nga am hôpital bu mucc ay nit ñi dootuñu soxla bu ñu feebaree war a jógee région ak région dootuñu soxla ñëw Ndakaaru léegi sax loolu wàññeeku na ndax la am Touba dina am Tivaouane fan yii di ñëw am na Kaffrine am na Kédougou dina am Tamba fan yii di ñëw doo dootul laaj ci région yi ngay jógee foofu di ñëw Dakar une fois réglée l'équation des régions dans les deux ans à on va s'attaquer au département parce que faj dafa bokk ci premier droit moo tax ma bëgg mandat bi doon un mandat essentiellement tourné vers le développement du capital humain jàng faj liggéey yooyu mooy li nga xam ni dinañ ko proposé Sénégalais yi ndax li ci des bu ci nit ñi dee wax président Macky Sall wala na yoon xam nañu fi ñuy jaar ba accéléré ko ni mu doublé lii nga xam ni président Wade def na ko ci fànn yëpp noonu lañu ñu amee yéene ndax ànd nañu moom woon yoon la nga xam ne def nañ ko ñu mën ko doubler ndax loolu mooy liy jëmale Sénégal kanam loolu mooy def tax Sénégal mën a yegg émergence avant deux mille trente cinq muy fii ak fukki at bëgg nañu li nga xam ni nattoon nañ ko mu war a nekk fii ak fukki at Sénégal def ko ci juróomi at yii di ñëw. xam nañu yoon wi et avec votre confiance avec votre soutien et ni ma ko gisee tey vous êtes engagé et déterminé amatuma ci sikki sàkk li des rek mooy tàmbali liggéey lii des mooy ñaan réew mi loolu moo jiitu ñu am jàmm jàmm ju mat sëkk kilifa diine ñu ngi leen koy ñaan ngeen taal seen loxo tey si ñu ngi koy ñaan kilifa diine yëpp ñu ngi koy ñaan mag ñi di ko yaakaare rek ci jigéen ñi ndax jàmm moom ci ñoom rek la mën a jóge ma leen di sant di leen gërëm jërëjëf jërëjëf